mu nga mbokk yi loolu moo nekkoon euh, ponkeel yi bu ko defee léegi ñu ànd ak yéen ci yaatal gi ñu dooree ko ak njiit réew mi excellence yi président Adama Barrow gannaaw ay fan bi nga xam ne nag ñu ngi toog lu gannaaw bu ñu delsee nag ci di di too bi fële ci dex gi nee nañ bés ni ki demee nag président bi tàmbaliwaat na nemmeeku too bi nga xam ne nag mu ngi koy def ci nemmeeku too boobu nag nee nañ président bi demoon na nemmeeku fële ca JK Farm nag ab ah, tool la boo xam ne benn doomi Gambia moo ko moom nekk fële lii di Toubacouta ci tundu ah, West Coast foofu nag ba fa demee gis na ne daal am na yenn ci ay ay jiw yi nga xam ne nag ñu ngi ko jiw foofu yoo xam ne ay vegetables la ah, moom kii di ndaw bi nag loolu la nekk di béy jël ko nag daal di koy jaay mu mel ni am na koom-koom boo xam ne nag mu ngi ko koy jural mbokk yi xibaar boobu nga xam ne nag Momodou moo ko bind dañuy ànd ak njiiti réew mi dis excellence si président Adama Barrow gannaaw bi nga xamante ne nii tàmbaliwaat na too bi nga xamante ne moom la nekk di def fii ci biir di réewu Gambia moom président Adama Barrow nag dem na nemmeeku tool bi ñu gën a xamee ci lii di Jikaay Farm Jikaay Farm bi nag mu nga foofale ca Toubacouta nekk ca West Coast Region foofa nag am na ay légumes yoo xamante ne nii moom lañ fay béy ci Jikaay Farm boobu nag président Adama Barrow dem na wër ko ànd ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo jiite lii di Jikaay Farm boobu pour seet anam bi nga xamante ne rek moom lañ nekk di béyee foofu ci lu aju ci wàllu lijum yu nu mel. Jikaay Femme bi nag mu ngi bokk euh, ci ay tool yoo xamante ne ni ñoom it jugee ngee seen waar pour fexe ba gis ne lu aju ci wàllu dund bi daal dina doy askan yu fii ci biir réew mi rawatina nag ci boor bi nga xamante rek moom moo aju ci wàllu lii di lijum yi ndax fexe nañ ba gis ne daal euh, réewu Gambia dinañ war a mun a am lijum yoo xamante ne nii du bàyyeekoo bitim réew waaye fii ci di réew mi la mooy bëgg di bàyyeekoo ci noonu nag moom président Adama Barrow ànd na ak ki nga xamante ne moom moo nekk CEO bu Jikaay Femme ñu daal di wër li nga xamante ne moom moo nekk tool boobu seet anam anam yi nga xamante ne ñoom lañ nekk di béyee foofa ñu gis ne nag eh, am na ay jumtuwaay yu bari yoo xamante ne nii am nañ ko yu méngoo ak jamono lañ waaye tamit anam bi nga xamante rek moom lañ nekk di béyee ci seen tool yooyu tamit nekk na anam yoo xamante ne nii méngoo na ak jamono ndax ñu ngi jëfandikoo jumtuwaay yu xarale yoo xamante ne nii mun na leen naa dimbale ci wàllu eh, mbéy mi eh, ci seen tool boobu ñu gën koo xamee ci lii di Jikaay Farm naka noonu it am na ñu bari ci ñi nga xamante ne rek ñu ngi doon jàngee ñu leen doon tàggat foofale ca Thiamène agricultural centre bi ñoom nag gis nañ ne jël nañ leen foofale ca Jikaay Farm ñuy liggéey ci li nga xamante ne moom moo nekk tool yooyu Seydou kamara Star TV News.